Ah, jërëjëfati mbokk yi woy ànd ak ñun seetaan déglu ñu daal dellu siwaat rek indiwaat beneen fàkkuteef goleen miin goleen xam ñu fàttali rek lay doon ngir ku ci nekk si ñun saa soo ko gisatee rek nga jàpp ko fonk ko ndax lu mu la mën a indil ci wàllu wér yaatu na lool muy li nga xam ne moo di curcuma ñu ko dee wax safran di doomu ndey ki nga xam ne moo di jinjeer safran nag daanaka rek moom ci boppam dafa am ñaari taxawaay yu moom dafa am amit baatin baatin wi mooy plante la boo xam ni daanaka rek dafay yokk nit ki ubbeeku ci wàllu mbégte ci wàllu cawarte ak lépp loo xam ne nit ki rek bëgg na ko mu jëm ci wàllu bonheur moom mi safaraan Euh, daf koy def moo tax soo demee ci yenn réew yu mel ni Inde miin nañ ko ndax ñoom saa su ne bu ñu xëyee ñoo ngi comp ci safraan bi def ci ndox sangu ndax jàpp nañu ne moom bokk na ci la leen ubbi safraan nag dafa lay indi wàllu wërsëg ndax moo tax ñoom si seen bopp daanañ ko jël sax saay bu ñuy xëy suba di yëngu ji dañ koy def ci ndox raxasoo ko raxas seeni loxo ñetti yoon loolee baax na ñoom aadala ci ñoom muy plante boo xam ne dafa am vitamine C. am potassium am fer te yëpp dafa am solo ci dundu doomu dama muy plante boo xam ne mën na laa dimbali lu jëm ci wàllu cataracte lu jëm ci wàllu rhumatisme lu jëm ci wàllu rhume waaye ulcère ak lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu tàngoor ak jafe-jafe lu jëm ci wàllu bakken ñaam sinusite ak yeneen xeet yu ni mel waaye plante boo gis tamit xam nañ koy jëfandikoo dafa baax su boobaa nag da ngay daal di jël benn kaas nga def ci meew daal di ko euh, tàngal. jël xaaju kuddu curcuma def ci daal di ko chauffer tuuti bu chauffer tuuti rek nga bàyyi ba mu sedd nga daal di ko sérité di ko naan soo ko dee def deux fois par jour après repas dina la daal di dimbali kon mbokk yi loolee bokk nañ li ñu woon tey ci curcuma ñu ko def safran 77 244 90 05 cabinet Biorahma am na ko jaa ngeen jëf.